ñoo ngi leen di ñoo ngi leen di sant ci teewaay bi mhm. di wax ne li sabab ndaje mi leen rek la. Mbaye Fall euh, maa ngi tudd mbay Fall nekk socialiste nekk xalifiste euh, li waral ndaje mi leen rek la mooy Macky Sall ak yoon ci senegal ndax euh, li ñu bëgg mooy Macky Sall. attu attekat kaay yi ci yoon yi ci senegal mu génne ci loxoom moom ak ay ministre ndax yoon su demee ban koy manipuler ci am réew réew moom mi ngi ci danger ñoo wax ne xalifa sàll candidature am Macky Sall du moom mooy tee Khalifa Sall jàll ci élection yi nu jëm incha loolu lu nu gëm la te wax nañ ko ko waxati ko ko waxati ko ko. ñoo ngi koy nag avertise di ko xamal ne ko lépp lu am ci Sénégal moom na jor na jël responsabilité am xam ne loola engagement la moom dañ koy wax ne ko moom ak ay ministre am si kenn du ko fawee ci am réew nit da ngay tëdd njaaxaanaay boo jabootee xam ne bu fekkente ne yow am nga bilan fal nañ la sept ci am réew su fekkente ne nii li nga liggéeyal Sénégalais yi doy na doy na leen ñoom ñoo lay falaat sans wax ju bari waaye yaa ngi wër di inaugurer ay liggéey yu yëgagul jàpp ne senegali yi mën nga dox ci seen xel yaa ngi nax sa bopp ma ne soo bëggee réew mi jàmm am ci yow yaay woote jàmm jooju ba noppi d'abord su fekkee nag bëggoo jàmm am ci mooy na nga boolagee candidature Khalifa Ababacar Sall ak candidature Karim Meïssa Wade ñun li nu jël nii décision boobu ñu jël damay wax ne bisub dee du bisu dund bi su dee képp ku dund doo gor te bu fekkente ne nii da jàpp ne menacé ñu ci wàllu kaso wala ci wàllu maanaam ay takk der moom mooy tax ñu arji arrière ci lii ñu jàpp yaa ngi nax sa bopp li ñu gëm danañ ko def insha allahu rabbi lu nu ci mën a fekk nag ñu xam ne yow loolu yow sa responsabilité la parce que yow yaa woo woon waa CEDEAO ñu dem Gambie pour maanaam wax ne Yaya Jammeh li muy def Gambie du yoon ba léegi jàpp naa ne CEDEAO seen takk der yi jógeegun Gàmbi ba léegi kon ma wax la ne la loolee nga doon wax Yaya Jammeh mi ngi ci sa kaw tey na nga xam ne CEDEAO ñoo ngi leen di wax ne leen yéen a ngi seetaan Macky Sall ak nguuram ñuy manipuler Sénégal yi comme nam leen neexee CEDEAO na ngeen jël seen bët ngeen teg ko ci réewum Sénégal te lii nga xamante ni mi ngi yoot ca ñag bala jëm te bu fa duggee kenn du fa dugal sa loxo ndax dëgg ya wax nañ leen ko ñoo ngi koy wax nag ñi nga xam ne ñooy ay xalifa sénéro ci réewum Sénégal muy kilifa diine yi ak kilifa aada yi ñi nga xamante ne ni bu dara amee ñoom ñoo jóg war a atte atte nanu teel a artu bala ñoo atte ndax réew mi nag fi ngi ci dansé de ñoom nag ñi ngi ci seen i calcul di def ay caaxaan ci télévision yi ak rajo yi di wax ne réew mi jàmm rek a ci am dinaa leen xamal ne leen jàmm su fekkee moom ñoom moom lañ bëgg nan teel a vancé méthode bii nu jël parce que baaxul ñun nag pare nañ tout pare nañ tout suñu candidature bés bu nu ko tee dem candi doon candidat ci élection yi lépp lu am ci Sénégal ñoom nañu xam ne seen responsabilité caaxaanuñ te it Barthélemy Dias wax na leen ko nee na leen ay ay magi jëmm lañ kafuñu réewuñu fawuñu nekkuñu ci sa li ñu nekk lu dëggu ci noonu la ñoo ngi jël sunu engagement ak sunu ay responsabilité ci élection yi ne xalifa Sall da ciy bokk far la force bépp nag saas bu taxaw ne xalifa Sall du dem ah ñun ñoo ngi lay déglu ba xam yow gore nga comme Kéba Mbaye wala maître Sey dégg nga loolu la ñuy wax nag damane ne na ngeen def attention na ngeen def attention loolu moo taxoon ñu dajee fii tey dañ koy wëral nag ci mboolem régions yi nekk Sénégal ñoo ngi woo ñëpp bépp xalifiste boo xamee yaa ngi ci Sénégal te gëm ne Khalifa Sall mooy sa candidature na nga jël sa ay responsabilité te ngànnaayu te fas yéene takku ba dëgër le 20 ñun ñëpp ñu ànd dem Dakar di xam le ne candidature Khalifa Sall far la force day jàll parce que gisuñu lu koy tee mën a jàll ci réew mi gis nañ ñu dajal seen i avocat kenn ku nekk dem ci télé di wax la la neex ak seen yenn journalistes yi nga xamante ni dañ leen a jënd comme nag léegi ñun ñoo ngi ci loolu insha allahu rabbi sunu xeex la sunu xeex la te maa ngi leen koy wax la ñun ñëpp danañ dem Dakar taxaw temm pour candidature Khalifa Sall jàll jërë ngeen jëf parce que fi mu toll nii yoon jeex na parce que li tax xeexu yoon jeex mooy ay ministre am ñoom ñoo ne cinq candidature la ñu am te premier ministre moo ko wax muy jëwrini ministre yi. kon dama jàpp ne moom ba mu ne juróomi candidat la ñuy am ci élection yi ñu jëm kon man dama jàpp ne fekkoon yoon am na Sénégal atu attakaa yi waruñoo sax sukkandiku ci ay waxam parce que moom moo leen manipuler ñun loolu la ñuy mën a gëm ndax li tax ñu koy mën a gëm moom moo wax avant. ñuy parrainé ba yeggal ne cinquante candidatures la ñu am ñu dem ñu ate ñu dugal seen cinq candidatures kon ban justice moo am ci réew mi ban ëttug attakaay bu bu dëgg moo am ci réew mi kon ñoom ñooy teg seen bilan ba noppi wax ko juge yi war a atte ñoom ñu jaar foofa te loolu nag dañ koy xeex parce que réew mi kenn du ko fowe parce que justice bu amul tim réew boo yoree sa alal di dem mën nañ laa dab dóor la sooy defee lu la neex dara du la ca fekk kon justice